tey premier ministre Amadou Ba doon janoo ak député yi ci pencum ndawi réew mi mbooloo bu takku daal di woon ñëw ngir fekkee si ndaje bile ñoom jaaykat yi ñu dajal mbégte lañu àndal ndax seen njaay dox na bu baax. waaye tey alhamdulilah njaay bi dafa gën a dox tellement ku gis événement bi ak tey ñu am gan boo xamante ne comme premier ministre ñëw di wax ci wàllum gouvernement bi donc fii daa xumb noo leen gise nu mu xumbee rek njaay bi tey noonu la doxee moo tax ñu sañsee ñi def à la citoyenne de Sénégal ñëw taxaw di jaay suñ jaay waaw tey la gën a dox bu dee wax dëgg yàlla tey la gën a dox ci yeneen jours di jàll tey moom jaay nañu ba pare jeexal jeexal tak ñëwaat toog essayé ni xanaa ñu commandé waa leneen jaaykatu banaana bile door a yegg si moo ngi ñuy xamal ne événement yi moom seeni affaire da ciy baax maa woo rek wax ma ko ma ñëw fii ndax yenn saa yi nga ñëw fii dal si daal nga jaay ba mu baax macha allah yenn saa tamit nga ñëw wëndeelu yaa ma gën a xam xam nga dëkk bi moom dafa metti yaa ma a xam affaire bi nag noonu la demee mais nag événement bi moom dañuy ñëw jaay macha allah suñu jëndee ñaari kees dañ koy mën a jaay ci bis bi dem jëndi jiwaat wala ñu dem noppalu ji yaa ma gën a xam. Amet Jaxate di xamal ne fan yi moom njaay mi neexul benn yoon waaye tey moom dox na. te te xaw naa tane moom xaw xaw xaw naa tane moom waaw xaw naa tane moom waaw fan fan yii yëpp dafa dëgëroon fan yii fan yii fa fa fan yii fan yii fan yii day xëy soo soo soo soo ngoon doo jaay dara moom. jaaykatu këram bile doon jaayee ci stade yi ndaje bile moo ko fi indi mais rëccu wu ko benn yoon. ci stade yi la ñuy jaayee bu ñu déggee programme yi am ci dëkk bi tamit comme stade yi amatuñu ñu ci programme yi jaay si. jaay bi de allah moom jaay nañ ba jeexal macha allah. waaw njaay bi moom baax na moom njaay nañ ba jeexal.